xanaa di sant yàlla di julli ci rasulullahi salallahu di wax ne rekk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ñëpp ci sunu boroom la ñu jóge te ci sunu boroom itam lañuy dellu ki nga xam ne moo ñu fi dajale tey tëdd fii ci morgue bi ñu koy waaj yóbbu ci këru dëggam ga di Sidi Lamine wax nga dëgg yàgg naa ak moom ndax euh, nit bu fekkee ne nekk ngeen daanaka lu jege ñaar fukki at war ngaa mën a wax tuuti ci moom waaye dafa tombe ak euh, wax tey xawma jafe lool ndax tiis wi nga xam ne nii moom a animé animé tey mboolem sénégalais yi ak umma islamique bi yëpp sax ki tëdd fii li nu ko mun a seddeel mooy. d'abord jullit àqan la ku gëm diineem la ku bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa la te dernier moment yi nga xam ne nii mooy fanam yu mujj yi firndeel na ko ndax ci semaine bii rek la jóge Makka ci euh, siyaare ji woon rasulullahi sallallahu alayhi wa ba mu fa jógee mu jaar Faas siyaare ji Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu mel nii daf doon tàggu soppeem yooyu nga xam ne nii ci xolam la leen defoon muy benn di diineem ñaar di bëgg am réewam yemalewuloon senegal ak lenn maa ngi koy wax euh, ci benn waxtaan ne nguur gu ñëw dangay yaakaar ne daf laa contre te boo nekkee ci ku jega ñëw tafu ci moom ànd ak moom ngeen di xeex euh, conviction boobu ak taxawaay boobu moom la musa taxaw damay wax ne Sidi contrôle pouvoir mais contre pouvoir la euh, régulateur social la yoon it ndax ci lu nu yëg ak ci lu nu yëgul yëpp am na ay fitna yoo xam ne doon na yoot réew mi waaye saay wu ne toq ci noppam rek jóg na dox ci te kenn du yëg ba yàlla defal ko ci ndam kon tey seede yi buñ ko doon seede mun nañu indi rek jikko yi nga xam ne nii moo tax ñu tagg suñu yonant di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu yëpp mu ngi woon ci moom xanaa li des rek mooy ñaanal ko lépp loo xam ne def na ko ci dundam ci lu baax yal na ko ko borom bi subhaanahu wa fuulal lépp loo xam ne nii rëq-rëq yi itam borom bi dara tëwul yal na ko sott soppali aw yiiw mu ànd ak moom ci bàmmeelam bi jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam